Macky Sall ne ko troisième mandat mën na nekk ñooñ ñooy dem ne ko ay soo jàppee Sonko rek maanaam le boulevard est ouvert. d'accord alors euh, déjà ce boulevard waa duñ duñ tijji beneen boulevard mais dañuy dester un peu parce que tantôt wax nga ko ci wax ji am benn euh, waay c'est Dof Ndeye euh, il menace des militants il menace des Sénégalais sous prétexte que il est avec le fils du président euh, d'ailleurs am na benn vidéo témoignage une fii euh, un, un homme jeune plutôt boo xam ne na il a été poignardé par Dof Ndeye mais quand il décide de porter plainte dañ ko ne euh, jaru ngay sonn parce que boo demee du mujj fenn mais c'est grave dans ce pays bu ñu amee ñoo xam ne dañuy am sañ-sañ di menacer génnee coup coup coup coup pendant ce temps on a on a vu euh, par exemple nit dof il a fait euh, juste des une sortie euh, mu am kàddu yu mu yëkkati mais finalement dañ ko déféré pendant ce temps lui il sort des armes blanches menacé ay nit di saaga mais absolument rien pour l'heure xam nga lëkkaat ni dof lu ci lu ci lu ci extraordinaire mooy gis nga yàlla chaque fois su nit nit génnee lu dul dëgg yàlla day génnee exemple li li waral lu dul dëgg boobu noonu. pour nit ñi comprendre. waaw fi ma lay expliqué xam naa dina la jaaxal trop mais dama lay exemple bu ndaw. allez euh, gis nga ku mel ni nit dof par exemple ku mel ni kii excuse-moi pas nit dof euh, nu mu tuddati. dof ndey di mois may def benn pensée à nit dof di ñaawlu tamit lu ñu ko tëyee prison parce que du yoon. Mm-hmm. lu mel ni euh, Dof Ndeye xam nga lan lay expliquer. lan lay expliquer. les raisons des bracelets électroniques yu ñuy takkal politiciens yi jamono bi. xam nga bracelet électrique électronique xam nga la moo tax tubaab bi créé ko. moo tax. Euh, pour la réinsertion de certains prisonniers. ou bien de réinsertion waaw réinsertion maanaam mooy ñi nga xam ne dañoo jotoon def prison ñu bëgg leen jox chance. ñu delluwaat ci askan bi ñu delluwaat ci askan bi mooy genre Dof Ndeye yi. est-ce que dégg baax la ma expliqué cest dire dama la <laughs> xaw ma nag. là je comprends. voilà comprendre lu c'est c'est très euh, c'est le c'est niveau. voilà <laughs> euh, gis nga bracelet électronique. Ah. réinsertion moo tax tubaab bi créé ko. maanaam ki nga xam ne jot na def prison ki nga xam ne dafa récidiver mais soo xoolee dans le fond. maanaam am na place yi askan bi daal mais il faut ñu tënk ko ne ko pour nga mën a gën a am à 100 pour cent place yi askan bi dañ lay bàyyi loo xam ne dañ lay surveiller maanaam dañ lay surveiller loo xam ne maanaam dinañ la wax ne da ngay jàngi wala di lay wax da ngay dem formation mais ci diggante 19 heures du soir ba 8 heures du matin da ngay toog sa kër doo génn dañ lay surveiller loolu moo waral bracelet électronique wax ji nag bëri na yëpp ñu ngi koy takkal ay politiciens yoo xam ne franchement amuñu benn mérite pour takku ko et tout parce que dañ leen bëgg toroxal rek ci seen kanamu njaboot mais amul benn sens maintenant gis nga genre def def ndey ñoom ñoo tax ñuy wax maanaam bracelet électronique foofu la yàlla fëlee ci mbiru bracelet fa da leen fa tontu maintenant qu'est-ce qui se passe mm-hmm. sur le cas de Dof Dof par exemple pour en discuter oui heure bi nii Amadou Sall par exemple moom mooy nekk daanaka le lieutenant de son père et président fu mu toll su fa tollee ci jeexal ba pare bëggul nangu ne dafa jeexal ba pare ñi ñi yaakaar dafa bëgg forcé te te mu bëgg forcé du wóolu kenn ku dul ku mu bokkal deret muy maanaam doomam. moo tax soo gisee dans les onze mois à venir dans les dix mois la dire que Macky dafay encourager doxalin bi. non Macky Sall il peut même pas au courant de ça. d'accord. de ce que son fils est en train de faire. Non, ce que son fils est en train de faire, il est au courant de ça. Mais la vidéo de Dof Ndaye et l'état d'esprit d'un gars qui s'appelle Dof Ndaye que son fils fréquente, lol Macky Sall mëna ko baña xam. D'accord. may dégg. Mais li ma bëgg expliquer moy mhm. heure bi ni mhm. beaucoup d'erreurs dina feñ ci wétu Macky Sall parce que doomam day dina dina a am place wétam. Macky Sall domam mhm. dina gëna am place wétam. Xamul tax parce que dafa jéxal. Paré na. ok léegi nag jeexal boobu noonu Macky Sall en naa et conscience xam na ne képp ku ko woo ne ko troisième mandat c'est possible képp ku ko woo ne ko soo daanalee Sonko ba tere ko dem mën na baax et tout noonu képp ku ko gëmloo. Mhm. ah moom xam na ne certes kii lu mu may wax neex na ma. Mhm. mais kii intérêt moo tax muy wax maanaam gëmul lu muy wax. ok maintenant nag kan moo mën a taxaw ci Macky la mën ko wax lu mu gëm si moom ci Macky Sall sur son mhm. ñaar la. jabar ji ak kese taawam bu góor. même plus proches collaborateurs. non les plus proches collaborateurs cest à seen titre la ñuy dund nii rek et tout dañ ils veulent y mais ñoom xam nañ carrément que ni ñoom ñoo nekkoon ci wetu Macky Sall ba Macky Sall di xeex troisième mandat Abdoulaye Wade. ak 2012 kon ça veut dire que gëmuñu ko expliquer. mënuñ ko gëm. maintenant doom ji mi ngi jël place et comme lu ma la wax fii ak des mois à venir dina gën a feeñ dina gën a fës parce que Macky Sall instant bi dafa xamante ne il est quand je dis seul mooy ñàkkul gouvernement et tout de mais seul mooy maanaam kii faire confiance seul mooy maanaam ki nga xam ne moom ngay waxal nga sentir ne kii li muy wax ni maanaam gëm na ko ci man dund na ko ci man te mënu ko am ci ay ministre am même les directeurs mënu ko am maintenant nag on peut faire liit lieutenants les fidèles les loyaux mais ça ne résout absolument rien lenn kese mën na fa tax a toog seen poche seen statut ak seen privilège. d'accord mais mais par exemple euh, le cas Dof Ndeye mais quand même est-ce que justice gënuloon euh, mu jël responsabilité parce que bu ñu nekkee ci société bi euh, ñu ne le procureur c'est l'avocat de la société et que cette société il y a un membre de cette société là qui menace d'autres membres et qu'il n'y a pas une justice qui réagit pour arrêter loolu est-ce que on risque pas d'aller vers une confrontation entre Sénégalais yi. Dof Ndeye dafa dafa dafa comprendre ne justice sénégalaise moom lu ñu koy wax dof nday yëpp moom il a compris que justice bi mi ngi ci mbedd bi. la justice est dans la rue. la rue oui la justice de la rue. la justice est dans la rue. xam nga gis nga yàlla dafa def benn affaire. Mhm. lu mu la mënti dénk. te mataloo ko ah dina fexe mu mujj ci ay loxo. d'accord mais wax ji mooy loxo yi muy mujj yow du la neex même papa bu yorul doomam ah. Mhm. sa doom mën na mujj ci benn loxo boo xam ne yow du la neex. justice. ay dossier la yoo xam ne yii yàgg na fa ba poussière yii yu bees tàqal et tout mais ñu ranger leen ci ay tiroir defal leen lu ñuy mën wax maanaam tribunal bu mag magistrat di fa daje. magistrat ñoom la ñuy peuple bi naan yéen la ñu dénk maanaam ngeen jàngi yoon yéen la ñu dénk ne yéen a ñu gën a xam yoon yéen a ñu mën a faram faram fàcceel yoon. ngeen àtte ci yoon ngeen àtte ci yoon. am na fi Sénégal am na ay magistrats yoo xam ne c'est des magistrats très très loyaux la preuve soo gisee yenn mutation punitive yi ñu yóbbu diw Tamba ñuy yóbbu diw Saint-Louis ñu yóbbu diw Kolda et te dëkk te ñu dëkk Dakar seen famille yëpp dëkk Dakar. le cas de Télico waaw voilà le cas de Télico le cas de Magatte Diouf. le cas de beaucoup de gens et tout qui a démissionné. juge Dème et tout voilà maintenant justice boobu noonu ñoom dafa ñoo xam ne dañ cee rax maanaam ki leen di nommé te waru leen nommé parce que justice dëkk lu ci important waruñu nommé juge. Sénégal waratuñu nommer juge. mais c'est la constitution hein? mooy li ma la wax man quand je dis que le système est mauvais. Ah, on va tous tout euh, constitution bi am na lu baax da mais lu bëri dafa bon. d'accord constitution bi am na yu ci baax. mais am xam nga tax. Mhm. suñu constitution dañ ko méngale comme bu France par exemple France seen constitution dafa baax de. le si seen société bi. si seen société bi voilà. d'accord français le français il sait ban date mooy prochaines élections présidentielles te xam na ne date boobu noonu at lu mënti am. même su guerre civile amoon ci France. dafay am day am. xam na ban date mooy élect date élec date date euh, élection législative yi at lu mënti am day am. en plein mën a bokk aussi. en plein Covid en plein Covid ñu euh, France dañu voté. te fii su nekkoon Sénégal fii nii dañ koy occasion la pour reporter ko la c' est pour t' expliquer. ok léegi constitution bi moo leen ko may. Mhm. mais pour xool dañu war a xoolaat nan la ñuy réfléchir. proposer sénégale yi nan lañ mën a tegee ay juge Sénégal juge yu fi nekk yëpp a jàng avocat yëpp a jàng. Hmm. Sénégal képp ku fi jàng droit boroom xam-xam nga boroom xel nga. Hmm. muy nga def lu la neex wala nga wax lu la neex. Hmm. mais xam nga wax ji lan la mooy pouvoir exécutif bi daa am ñoo xam ne daf leen tënk daf leen tënk. def leen comme ay robot di leen def lu leen neex te loolu du yoon. moo tax ñun suñu programme euh, si mouvement national sénégalais. dañoo ne suñu yàlla yóbbee au dañuy fexe ba juge yi dañ leen di nommer par assemblée nationale maanaam député yi. ñoom ñooy dem ba di élire juge yi. je ne par pas nommer mais élire. parce que nommer si diggante nomination lu nekk am na ci. dafay am sentiment de redevabilité. waaw soo xoolee par exemple dëkku. Mhm. Euh, dëkk dëkk yu développé yëpp comme maanaam ñu ñu jàppee exemple démocratie. Mhm. foofu sooy xool maanaam maanaam li nga pouvoir pouvoir nominatif bi. Mhm. moo gën a néew pouvoir électif bi. parce que pouvoir nominatif bi chaque fois. dañ ciy jugé ne intérêt mi ngi ci intérêt ci kuy nommé xam nga Macky Sall ma jox ndaw lan mooy lan lan moo lan moo nekk intérêt mu nommé Yankhoba Diattara ak euh, Ali Saleh ministre parce que intérêt wu Idrissa Seck ñëw na fekk si ma. te loolu doxalul dëkk. une sorte de xam nga xam nga da ngay xool par exemple Macky Sall. Mm-hmm. c'est le seul président boo xam ne depuis presque onze ans maintenant. Mm-hmm. il dirige le pays avec une coalition. loolu soo koy analyser da lay won rek ne Macky Sall de facto du président bu am vision xam nga vision soo ko amee. Abdoulaye Wade je sais que c'est c'est un pro système et tey ñu bëri d'accord ma ci moom mais xam nga ne amoon na vision ci Sénégal Abdoulaye Wade parce que ba mu àndeek ak Moustapha Niass son plus grand souteneur gagné au bout de un an et quelque dafa dafa dafa séparé Niass ne ko dafa am loo xam dama ko xalaat ci Sénégal bëgg ko appliquer te il faut ma teg ci il faut ma ko ñi nga xam ne ñoo ma gëm carrément. muy le PDS. mais Macky dafa ñëw moom tënk coalition bi APR PS ñëpp tënk leen ba léegi nii depuis plus de dix ans et et et tënk bi xam nga la maanaam les entretenir. d'accord c'est comme par exemple. Mhm. un marié riche. qui a signé monogamie mais mu am deux et trois copines à gauche mënu leen marier parce que su ko defee jabar ji su ko ba daan mais da leen entretenir ku nekk mu dugal la ci kër ku nekk mu jox la oto ku nekk mu jox la ay privilèges pendant ce temps. C'est une mm. clientélisme politique, ça. Oui. <laughs> Donc voilà. voilà, il y a une question. Il y euh, l'avis, c'est la suggestion d'un internaute qui dit euh, le problème, ce n'est pas la constitution, mais c'est la nature de nos juristes, ceux qui sont chargés de faire appliquer la constitution en commençant par le gardien de la constitution. Non, constitution bi dama koy tontu ne ko constitution bi am na problème xam nga lan mooy premier problème constitution bi. oui mooy gis nga Sénégal fii. la majorité lan la ñuy làkk sooy wax ak dëkk wala dëkk suñu bokk suñu bokk dara da leen koy wax ci seen làkk. ok gis nga ma dégg. léegi ko ci olof. xam nga xam nga par exemple. Macky Sall adressé aux Sénégalais sans les paroles. voilà xam nga par exemple Macky Sall. te démb maa ngi koy démb maa ngi koy te maa tamit ci avocat Sonko yi démb maa ngi leen di seetaan quoi je pense que c'est juste un un seul avocat moo jaar ci passage wolof. avocat bi dañoo ñëw di làkk français. comme si maanaam lii dal Sonko. tubaab yi la intéressé que ñun sénégalais intéressé ñu alors que ñun ñoom ñun ñooy seen interlocuteur ñun ñun la waxal donc nañuy wax olof ci seen ci ci seen défense c'est important maintenant pour ñëw ci affaire constitution bi constitution bi dafa am loo xam dafa am solo gis nga soo demee ci constitution par exemple suñu lay bindal maanaam les langues nationales dañoo jël wolof jox ko quatrième position xaw ma cinquième position rek pour suul ko waaw te pourtant ki doon bind constitution moom wolof la gën a dégg que français xam nga Macky soo gisee wax ji bëri uh-huh. ay waaye interprétation supposition et tout suñ la bindaloon ne la maanaam kenn mënta am ñaari sas. yu tegloo yu tegloo jaru sax yu tegloo mais soo nee kenn mënta am ñaari sas rek point. ñaari sas waaw na leer na. jeex na kon ñetteel amul. ñetteel amul. ok de est-ce nga olof bi. c'est parce que c'est pas écrit. ci c'est-à-dire dañu war a xama keroog Juan mooy avocat Sonko bu français bi lan la wax. dafa ne dañuy manipuler population sénégalaise yi si langue française wax na ko. te loolu te loolu laa loolu laa mës a wax xam nga fan la ñu faussé. dañu am benn président boo xam dafa ñëw un Senghor il est venu sa seule mission c'était de fexe ba sénégalais yi ak doomu sénégalais yi bëgg français bëgg gëm ne ku ko làkk kese moo nekk ci a a nekk ci mun yoonu mën a dem dëkk ci tubaab bi ku ko làkk kese moo mën a nekk directeur moo mën a nekk ministre moo mën a nekk njiit ci réew mi. te loolu moo nekk le plus grand piège ci lu ñu nga xam ne moom maanaam moo tax ñu raté lu ñuy wax maanaam moto de développement primaire. piège réussi aussi. voilà réussi parce que Senghor même bi ci hymne yi dañuy xool suñu hymne environnement hymne bi comme si dañu nekk ci benn àll teg ay matt taal di fecc di noos affaire yu noonu cest à ay affaires yoo xamante ne. retracé wul benn histoire. c'est-à-dire dafa ñëw effacer ce qu'on appelle maanaam l'identité nationale. suñu identité la effacé ñu ñuy jàngal. ay buuru yeneen réew ay buuru tubaab te ñun ñu am ay buur ñu ñu jàngal ay guerre yeneen dëkk te ñun ñu am ay guerre je me rappelle benn jour mës naa dem Thiénaba mm. ci benn gàmmu professeur Serigne Diop sama mm. sama papa la quoi ma koy nuyu au mm-hmm. euh, ci ci ñu génn di doxantu quoi ci zone Thiénaba bi mu mu may expliquer mm-hmm. ne ma fii nii champ de bataille la woon affaire yi noonu quoi mm-hmm. mais su la ma waxee après sa xel day dellu ci ginnaaw quoi tu te bon fii ay nit dee nañ fii fii amoon na ay ay coup de feu amoon na ay ay ay sabre quoi mais mu nekk loo xam ne yow en tant que sénégalais da lay toucher aux racines. sa dégg nga xam ne mais ñun fii nii paradoxalement lan la ñuy jàng ñun ñu ngi jàng geeru France ñu ngi jàng geeru Allemagne ñu ngi jàng guerre yeneen dëkk parce que dañoo jàppee ne tubaab yi ñoom nu weex dàqee ñuul ñoom noonu la ñu gën a muusee ñoom noonu la ñu gën a tegee nu mu ñoom lañ ñoom ñoo daal ñoo ñu ëpp xam-xam ko tubaab bi dañoo dem ba beneen soo xam ne sax maanaam ñoom nanguwuñu sax ne golo bu weex am na te pourtant golo bu weex am na mais soo demee ci internet bi et soo bindee singe lu ñuul rek ngay gis <laughs> non en fait Senghor ci loolu la ñu ci loolu la ñu téye. d'accord dama lay expliquer quoi. Oui. maintenant ñu nax ñu si suñu làkk ñu bëgg ñu àtte ci lu si lu suñu làkk instant yi Sonko coow li lu muy bëri yëpp Sonko olof la dëkk olof la dégg Mame Mbaye Niang olof la dégg xaaral ba moom laa wax juge olof lañ dégg population bi olof mais suñu ñëwee war a àtte sénégalais lan lañuy àtte français làkk waaw léegi yow loolu loolu lan mooy identité nationale si dëkk bi cest à li ma la wax ni xaw xam nga li ma tax ma ne la le système c'est pas contre Macky c'est pas contre Senghor c'est pas contre kenn dama lay expliquer rek li ma la wax nii xaw ma la nga ko dégg ko je léegi nag yow kooku pour wax ko si constitution lu gën a am solo soxlawuñu éliminer yenn langue fii ñi fi dégg français dégg nañ ko gis na man français laa gën a dégg ko wolof man soo man man soo may wax sax yenn mooy parfois am na sax ñoo xam maa ngi wax ak ñoom quoi ci bi quoi parfois damay ma doon wax ay mbonte ba may wax mbonte seen TV la ba ma ba ko gars yi naa ñu ne ma li nga wax moo olof bu leer nañ la te benn ñaaw-ñaaw man leen kon alhamdulilah c'est pour t'expliquer man dama ne suñu éducation nationale moo njëkk foose ci làkk bi suñu éducation nationale da nga ñëw ñu jox la làkk boo xam ne déjà yow munoo koo làkk. Mm-hmm. parce que nampoo ko. sa doom su defee école trois ans met euh, nu mu di ku koy jàngal ku koy jàngal gëm loolu ne la xel bi neexul kii de teel koo yóbbu mu dem defi métier. pourtant xel bi naqariwul de parce que dañ ko yan lu diis loo xam ne xamu ko miinu ko. ko voilà da ngay xool par exemple ministère de l'éducation nationale soo demee ñoom. Mm-hmm. ils ont des des enseignements si loolu. ñoom def nañu test bi. ay manuel xale yi nga xam dañ leen jàkk dañ leen jàngal. ci làngum olof dañoo rawee de trois cycles xale yi nga xam ne ñoo jàng ci làkkum français. ok da ngay dem par exemple ci àll bi comme ni ñuy wax àll quoi euh, waxuma du ma ne àll comme àll quoi mais dans la campagne quoi. Mhm. par exemple soo demee par exemple Ziguinchor. kan moo fay maire du Sonko. bien wax suy def conférence de presse laa dafa làkk Joola des fois. non non non non làkkul Joola français lay làkk. non non olof lay làkk. olof oui. Fuuta bi su fa Farba Ngom at lu muy jaay yëpp su fa demee suy def conférence euh, lu muy làkk. pël lay làkk waaw. Ah. non làkkul pël olof lay làkk. ah bon oui. fii képp ku fiy def conférence de presse di politique olof ngay làkk. peut-être c'est olof mooy langue nationale. dama ne la Farba Ngom suy làkk pulaar. daa fekk dafa tëju at ay mbokk pulaaram. mais su toogee tim micro yi di wax olof lay làkk. Sonko su waxee leneen lu dul olof ay jolaytu daa fekk xëy na dafa nekk at ay nit yoo xam maanaam en comité te su leen neexee parce que c'est ethnique et loolu c'est normal mais c'est pour expliquer juste que ne làkk olof c'est pas une langue ethnique maanaam en science politique moom la ñu woowee une langue véhiculaire xam nga langue véhiculaire mooy làkk la boo xam ne dans moom la ñuy làkk ñun yàlla daf ñoo jagleel wolof comme langue véhiculaire bu doon soose la moo wax ko bu doon bambara moo wax ko bu doon tukulan moo wax ko bu doon pël moo wax ko xam nga soo gisee par exemple suñu doom yi nga xam ne dañu nekk ci maanaam zone reculée yi comme yu nekk Fuuta yu nekk sud wala nekk feneen dañuy xool sa doom day nekk école jàng français ñëw ci kër gi am exercice amul moyen am maître amul moyen am cours supplémentaire mais su ñëwee mënul def exercice yi su ñëwee mënul lire leçon bi parce que am na yoo xam ne comprendre ko yow parent bi français bi dalaa rëcc parce que mosoo koo jàng parce que dañ la gëmloo ne la il faut lutter contre l'exode rural toogal sa nga bay nga sàmm et tout yow nga nekk ci loolu maanaam mënoo fexe am ubbeeku bi léegi yow sa doom mënoo ko dimbali xamul tax parce que li muy làkk ci français yow maanaam mosoo ko jàng alors que suñ ko làkkoon ci làkk boo xam ne moom la Sénégal yëpp di làkk muy wolof yow même si bu dee maanaam jàngoo di nga am expérience boo xam ne sa doom su la laajee ci yenn maanaam exercice yi di nga xam loo koy doon parce que maanaam nga wolof d'accord